<laughs> waaye TFM nga am fii ak ITV maa la ko wax i rajo RFM nga am fii yow léegi foo faral yow léegi ah. RFM wala i rajo i rajo <laughs> dégg ma mooy defe yaa nga mais mon ami mais <laughs> mais Mbaye. mais Mbaye waay. mais Mbaye na mu daal mais Mbaye sañ nga nag. animateur nii lay mel. animateur nii la war a mel. animateur dafa war a dégg. di poxonoosee. dégguma di wax la neex. non tenue travail rek. <laughs> xam nga boo di liggéey. Uh-huh.

ay mbay baal mbay <laughs> non non mais dama fiir dama bëgg nag nga wax ko man maay kan. non c'est vrai ndiku fiir mais mbay <laughs> ah. mbay mbay est-ce que xam nga li ngay def. te te bisu bisu bisu bisu góone bisu jagana moo koy takk attends moom nga may njëkke. waa moom laay may njëkke wax naa wax naa mais bu góor day am. ah njëkke waaw yow yaay njëkke bu góor. bu góor bisu ngóone njëkke bu jigéen. ci mbay. Ah, sama xarit nga nu <laughs> boole. xarit nga. Ah, moto jàmbur baa ngi am euh, euh, euh, décembre nag. incha allah lay takk oh. mais mbay temps affaire bi coow bëri na de yow xam nga yow. su coow amee. Uh-huh. da ngay rek da bi. yaa ngi ci mais diggante Viviane ak Abindour. Uh-huh. ak ak ak kii ak Titi. mbay wax ji bëri na. damaa bëgg nag nga tënk ko xool. yow xam yow da ngay romb nit ñi ko képp <laughs> téléphone am bi. see wax. mais da ngaa see war a wax moo tax ma ma kii. diggante. Titi uh-huh. sa xarit la. Titi waaw

famille lu ko defar mhm. moo gën lu koy tas mhm. euh, bu coow amee ba détail am ba kenn ku ci nekk wax jëmale ci benn boor mhm. nanu xool nu mu rafetee ba nu defar ko te fu fu fu njaboot juddu jàppal ni tas ko yombul tey Viviane dafa bokk ci biir famille yu Ndour euh, am lu mu leen liggéeyal ci Euh, walu liguey bi professionnellement. Mhm. wa am lim le liguey ci familial c'est-à-dire lo xamé djural na len ko. Mhm. muy tay njabot gi fa juddu. Mhm. par ak Zeyna. Uh-huh. kon yakarna lepp lu fa way di wax rek dafa wara xol xool gëna mu euh djadjo fay euh abi magu vivial, la. xam nga mbir bu amé ñak waxtaan la ko nit ñi di jappé bu jëmé kaw

xam nga Sénégal dafa nekk dëkk bu tuuti boo xamante ni mbay euh, pour problème jug fii ba am lu mu mel dafa yomb te mën nañu tal leneen lu dul ay détails nañu tal leneen lu dul ay détails yu wax de gauche à droite mais coowal réseaux sociaux coowal fait divers moo nu ëppal importance njëgu ceeb bi mbaa njëgu courant bi mbaa njëgu euh, euh, ndox mi nanu toppatoo yooyu ñu bàyyi coowal mbay def na nangam mbay génne na nangam mbay dégal na nangam yooyu amul importance pour man. Mhm. mais coow coow coowu bi ak ak ak kii bi. boobu wax boobu sax baax na. baax na quoi. xam nga boobu baax na. Mhm. parce que boobu. dafay dafay dafay animé dëkk. Ah, ah, ah, waaw loolu dafay animé dëkk. Mhm. et que euh, occasion la xam nga man moom mbay mbay nee naa du ma wax ci site internet waaye yow. <laughs> sama xarit nga. <laughs> mais occasion la pour ma féliciter. Ngaaka Blindé. féliciter Akhlou Brick. pourquoi parce que. Euh,

Fata clash na euh, ki nga xam ne moom moo di euh, euh, Marabu. ñëpp daw kar album bi. Marabu clash na Fata. ñëpp daw kar album bi. Fata clash na Dari Bibson ñëpp dem clash kar album bi. pi Pinal Gang génne nañu album clash nañu Dari Bibson son ah, whatever ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dañ doon xaar sa sortie et lu mel nii. dafa une ci luy dundal culture bi la culture urbaine bi mhm. Akhlou Brick ak Blindé allah nous nañu gi mhm. ni réveiller encore li doon La mhm. c'est-à-dire ennemis ku ci nekk da ngay def sa euh, battle, trip clash sa morom pic lenn biif bu am biif moy xulóob wala xeex loolu boum am et aussi feex nañ ba réussir ba tay ñu ngi ci gagner khalis khalis mhm. et lolou dañu ci féliciter Eric Favre moy le promoteur bi nga xamé mom mo teug programme bop mhm. c'est pas évident nga fek ay chanteur wala ay euh rappeur nga ni non da nga leen di financer pour ñu teug événement c'est la première fois c'est la première fois mu pour ñu def baatal tëgg leen pour ñu wane ni que affaire bi mën na mën na yegg fu nekk ci àdduna bi comme li ko les américains di defee d'accord na ñëpp jug kii ni ngaaka laa faral kii ni axlu birig laa faral même nous les animateurs mhm. nous ça dañu war juk jug ci jeu bi ah waaw si loolu ñun dañoo war a bokk ci jeu rek si fës quoi non mais c'est normal parce que Abba dafa xam affaire bi ni mu démé mhm. mais lan moo ce ce sa sa euh, euh, gisuñu la ci ce réseau yi yow sa compte yi am na doole non pas sama ay réseau cassé mhm. ci sama radio ak télévision waaw mais yow da nga si da nga si nopi quoi non nopi wu ma ci dé maa ngi wax ci radio bi maa ngi wax ci télévision bi c'est-à-dire à la radio je ni non nangam sangam expliquer analyse euh, décortiquer exactement son yu par euh, euh, aussi côté bobu benen rappeur One Lyrical whatever la ni yow kat il faut nga parti nangam sangam nangam sangam. c'est-à-dire que du damay génn ci réseaux sociaux yi rek maa ngi war wax télévision am radio rajo wax. Ah, ah mais avant tamit am na si mais xam nga ni mu amee Aba am na. Euh, ay ay plateforme mhm. plateforme mi am nañu doole. Mhm. ma nga wax. Mhm. et que lool occasion la tamit. pour mu mën promouvoir la culture urbaine. tay culture urbaine bi képp ku ci duggal sa loxo rek. def nga li la war. amul affaire bi amul animateur mbalax amul animateur rap.

sénégalais di laaj loolu. Mhm. parce que chaque jour su ma posté sa sa photo. Mhm. ñoo ne sa xarit bi dañ koo gëj a gis. Mhm. sa xarit bi mbay sa dañ koo gëj a gis. waa loolu la dañuy bëgg a wàññi sa doole walla <laughs> mbay ah. non non non xam nga dafa fekk ni télévision dafa am ni muy demee. yow na sama xarit moo tax may wax wax ji yëpp. ndax ah, may dafa am ni muy demee. ni muy demee mooy par exemple gri de programme. dañ koy teg. ni grille bi ñii lay demee.

parce que yaatu na yaatu goo xamante ni am nañ ci cër d'accord Cheikh bu ñëwee bimu mu dafa yok bi mu ñëwee dafa mm-hmm. gëna dolel affaire bi mm-hmm. et que man loolu mo nekk sama combat mm-hmm. groupe immédiat ñu diko dégg fep ci aduna bi ITV ñu diko dégg fep ci aduna bi i radio ñu diko dégg fep ci aduna bi loolu mo sama combat comme ni mu nekkee combat <clears throat> ki nga xamé moom moo di Boubacar Diallo mi nga xamé tay moom moo nu jité mom moy sunu kilifa je suis euh, le patron. Mm-hmm. comprendre nga donc si vous ñëwee gis Boubacar da nga dynamique Cheikh mm-hmm. <coughs> euh, c'est vrai que vous avez ngeen gis plateau de télévision. Mm-hmm, parce que dañu nekk di changer grille de programme. ak at bu donc am na affaire yu bari yo xamanteni ni liggéey ko. est-ce que est-ce que du parce que Cheikh sar mhm. mi ngi gën mais man man mi liguey man mi liguey 5 ans. Mhm. non stop musuma jël congé. Mhm. musuma am pause. musuma am fête. aw dara. tay nak buma démé ba Cheikh sar ñëw. seconde ñëw ci i radio i tv ñëw liguey yu bari yu ma don def mu mën ci jappalé loolu mbégte la ci man. mbégte bu rëy la ci man parce que. Euh, saturé suis dañu le ah, mais waxtan ngeen si non amul waxtan ak Je même si parce que Cheikh xam Cheikh c'est mon grand frère. man dama ko bëgg dafa nit estimé nit de par je suis un ak doxalinam Cheikh dafa que nit kuma c'est-à-dire ITV <clears throat> fonk Cheikh du ITV avant ITV

ay homme de média ñoo ko créé kenn waru fa liggéey ku dul homme de média dafa yaatu ñëpp xaar leen c'est-à-dire da ngeen doon wax padros padros yow dong yaa fi nekk yow dong yaa fi nekk pendant cinq ans ñeneen ñi ngi ñëwaat du moom moo waat kese ñeneen ñi ngi ñëw parce que loolu mooy loolu mooy liggéey Sofia bu ñëwee damay neex waaw kooku bu ñëwee damay neex bu ñëwee daf may neex Safia bu ñëw daf may ne mais dëkk bi hmm? mais tay ñu ñëw que fekk fekk la yàgg hmm. Adji bu bëgg ko couvrir ci ab waaw xam nga la hmm. parce que ñun derrière ñu ngi bëgg parce que 2008 ba légui du ñaari at du at musique sénégalaise. bokk ci artistes yu ñu gëna a ñu gëna Sénégal. pourquoi professionnalisme bi ci aji dalgi tax dal gi mu dal gëm gi mu gëm liggéeyam respecter bi mu respecter musique c'est-à-dire musique bokay def da koy respecter soko respecter mu yóbbu fi nga bëgg yegg boo respecter nak do fa yegg def sorti album woo en tant qu'animateur ma ñëw présenter ko donc showcase bi euh, lool mbégte la donc ci karam touti ñi nga war a dugg ci biir euh, salle bi King Fat

mu dem ci dëkk bu ñu naan France jang yalla may ko ouverture xam-xam mu maîtriser musique bokku ci artiste yi nga xam dañuy way en même temps di jouer instrument def seen ñëwaat Sénégal fexé ba marqué empreinte am Adiouza lu mu mësa génné hit la 2008 la ñëw génné single doxal 2009 mu génné album dem euh, centre culturel français des spectacle quelque temps après 2010 mu gagnons single cest à ma nekk nekk ma nekk fi di répéter lépp li fi Adiouza liggéey mais Adiouza. mën na yegg ah non waxuma lool waxu comparatif comparé wu ma Viviane ak Adiouza dama la Adiouza mën na liggéey lu raw li Youssou Ndour sax liggéey waxuma la Viviane. xam nga Viviane ren la. Viviane ren la et que ñun bu ñu amee ren bu mel ni Viviane dañ ko war a. société quoi dañ ko war a teg di ko aayoo nen ne. ngir ngir mu dem ci kaw a kaw. mais noonu laa bëgg ñu def ko Adiouza def ko ndaanaan yëpp. Adiouza euh, Viviane Kumba Gawlo waree fa ñoom ñëpp ay ay ay ay ndaanaan loonu Sénégal ñëpp ay ndaanaan la ñu. voilà. Uh-huh. mbay doole ko. Uh-huh. Ah, parce que yow su ma jaaxaloo yow damay bëgg vidéo li nekk ci yow yëpp. loolu vidéo nekk ci man nekk ci man lépp mënoo koo. vidéo dégg naa da waaj dem ah? damay waaj dem TFM. dégg nga. Mm-hmm. Ah, baax na kon bàyyi ba ñu yegg si ba mu ba leer na que yow damay dem TFM. Mm-hmm. ba ma laajee ma tontu la. parce que TFM nekk nii eh, anim animat euh, néew na animateur quoi. ah ah animateur de bàyyi la wax. Ah. Ah. am animateur. waaw <laughs> mais combat bi ñu jublu si la. Ama mooy daan. Ama mooy daan. Ama mooy daan. Ama mooy daan doomu Pikine laa. Mm-hmm. est-ce que benn affaire mbay. Sénégal dañoo war a bàyyi di wax ay diw far na fii wala diw far na fii gis nga boo demee aux États-Unis seen euh, combat yu ñuy def ay KO ah, ay euh, euh, li nga xam ne moom moo di boxe mm-hmm. ah mm-hmm. sportif bu nekk mm-hmm. quartier ba mu dëkk célébrité ya fa dëkk ñooy jukk njëkk promouvoir événement bi c'est-à-dire ama bu dëkkee Pikine képp kuy célébrité dëkk Pikine moo xam ngay waykat lutteur da nga war a far wane ni

bu AS Pikine di jóge di football ma jug man en tant que doomu Pikine dem supporter AS Pikine d'accord ni AS Pikine moo mën jaraaf nangam sangam def ego trip loolu mooy jaay c'est-à-dire euh, domaine bu nekk ak la ca ne nañ nit ñi di farfarloo baax na mais nañ ko teg ci euh, euh, respect ak ci esprit boo xamante ni esprit de fair play la quoi. Mm-hmm.

ci ci ci ci ci football bi ci lépp nañu fair play ba ci way yi sax nañu fair play mhm. Padros am na sañ-sañu taxaw ni Wally sekk mooy sama waykat mhm. am na sañ-sañu taxaw ni Youssou Ndour mooy sama waykat nañuy wane fi ñu li ñu bëgg ak fi ñu fàtte nit ñi di ko nangu nit ñi d'accord jaajëf waay si mbay demal